Euh, peut-être joxe seen version ñoom administration pénitentiaire bi waaye itam ñi nga xamante ni peut-être ñoom it ñu ngi euh, nekk fi nga xamante ni moo di ci campénal ba tey bokk rek ci ci cellule administration bi je pense que ñoom kenn gënu leen Euh, placé ngir ñu wax ñu li nga xamante ni moo fi xew peut-être une fouille lañ ñu wax waaye itam détenu yi ni nga xamante ni noonu lañ ñëw rebellé woo ba daal di dal ci kaw ñi nga xamante ni ñoo di garde yi ñi nga xam ni ñoo yor seen sécurité mbir moom itam peut-être euh, am na benn divergence boo xam ni am na si qu'est-ce qui s'est euh, loolu yëpp nekk ay yoo xamante ni ñu gisoon tey administration pénitentiaire bi mënees nañ leen ko laaj ñoom it ñu daal ci indi ay leeral waaye en attendant en contact ak ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Sall euh, ancien détenu moom moo yor euh, ASOP donc dañ ko teewlu moom mu ñëw ci version bi depuis sànq ba tey ñu ko doon jéema a joindre mais mujj nañ ko jot Ibrahima yaa ngi en direct ci suñu ay plateforme euh, pour nga mën a revenir ci li nga xamante ne moom moo xew exactement nga jox ñu la vraie version des faits. saison campénale mooy bi nga xamee ne dañu yeewu gar yi dañ doon def li nga xam ne mooy fuy fuy mooy fuyee les ak yooyu. ok dafa am benn décret bu ñuy wax décret 362 bu 4 mai 2001. Mhm. relative aux procédures d'exécution d'aménagement des peines et des sanctions pénales qui régit le règlement des établissements pénitentiaires bi nga xam ne moo wax garde pénitentiaire yi de am nañu droit ñu def fuy ci néegu détenu pour xool yàmba wala wala téléphone. loolu waaw loolu nag si suba lañ ko def si néeg bi xam ne moom lay yor chambre bi ba ko defee nag anam yañ ko defee moo jaarul yoon parce que même bu leen ko yor mayee détenu yi seen añu tabaski muy seen yàpp indil leen seen meew seen café di war a fenn koom fuy boobu nag ñoom dañu ne maanaam dañu jaxas seen lekk seen lekk ay tuuru ak mooy li leen naxari. Mm, ok. foofu nag la fitna bi juddoo. Mhm. ah bi fitna juddoo détenu yi mer génne ay matelas di ko taal ñu dagg sax ay caméra de surveillance. ok euh, ñu mën ko daal woowee daal li nga xam ne moom mooy BTV loolu nag bi mu amee ñun en tant que ASRED man woo naa ci kaso yi mais jëlul sama appel envoyé naa ko message yi tontuwul. parce que mhm. ñun li ñu bëggoon rek mooy dem dox fa tànk jàmm jàmm dellu siwaat mhm. dem fa. ak ah, ministre de la justice masa wu prisonniers yi bu def enquête koo xam ne dafa loru ñu xam bu ñu fa laajee dëgg ñu xam bu ñu fa tiiree balu fital ñu xam mais loolu lépp amul amaat nañ si lu leer. Mhm. alors donc mën nañu xam euh, image yi doon circulé ci réseaux sociaux yi fan la jógee exactement. waaw image xam na xam nga man wax naa ne am na garde boo xam ne jàpp nañ ko bëccëgu na rek am muy jaay yàmbaa ci kaso bi loolu kenn du ko weddi man mii man maa def ay jéego yu kenn taxu ko administration pénitentiaire ok man tey tey jii buñ ne dañuy tuumal am def ni yàmbaa wala téléphone man damay reetaan daf may jàpp ndax loolu mënoo ci génn garde mënoo ci mhm. kon bu fekkee ñoom dañuy fuye yàmbaa wala téléphone nañ dem ñu fuye garde yi parce que man man may wax kenn du ko weddi man dimbali na ab garde boo xam ne bu du woon man ñu dàq ko ok dañ ko jàpp bind ko dara kamba ak yamba bu koy jàpp. ci mhm. biir kaso bi lañ ko jàpp ci biir kaso bi caméra de surveillance ñoo ko jàpp. ok donc kon euh, nañu nañu xool responsabilité yi ñu situer responsabilité yi bu baax a baax a baax a baax te ñuy xaar nu mu gënee gaaw ministre de la justice kenn war ko faal rek mu toog Ndakaaru toog si bureau parce que premier ministre sant leen loolu ministre yi dañu dañu war dans de telle situation le ministre de la justice doit vraiment effectuer benn déplacement. Dame Sangaré dans la situation bi nga xam prisonniers yi. allo allo. waaw. voilà ñoo yaa ngi ñuy am en direct allez-y waa. waaw loolu moo ko si bàyyi mais xam nga tey ju fal la nga toog sa bureau woote ñu naan ay problème bu ndaw la wala ay vidéo yi kasuma la jógee vidéo yi dañ ko filmé xamuñu ko filmé. ok mais vidéo yi li mu wér-li mu wóor saytu naa ko. ndax kaso bi dem naa fa dugg naa fa xamee naa kaso bi bu baax vidéo yooyu maa ngi dëggal la vidéo yooyu ci kaso bi la jógee ministre bi nag mhm. ñu ko may rek fii ak ëllëg ndax dina sol daalam dem fa waaw wala dem ndax faluñu leen pour ñu toog seen bureau Dakar mhm. faluñu leen pour ñuy régler problème mu justice rek fàtte kaso yi kaso yi dafa bëri ay jafe-jafe te président de la république jaar na kaso le premier ministre jaar na kaso mais li xew ci kaso Sénégal yi dafa metti ay doomu aadama di ko dund seen i ay ay ay ñu seen xel naqari nekk ci prison yi ay jigéen yu am doom kaso yoo xam ne ay zinc la kaso kaso Kaolack zinc la kaso euh, Kaffrine zinc kaso Koutal yëpp ay zinc ak tàngaay bu métti boo xam yi ñu ngi nit nag buñ la jàppee dañ la a jox say ak say yelleef. Mhm. waxuñu ne ñi nekk ci kaso bi ñëpp la seen loxo set mais am na ñoo xam ne dañ leen jaay doole yóbbu leen kaso ñooñu foog ñu bàyyi leen xel. Mhm. ñu waree lekk ñu jox lekk bu ñu waree faj mais dem ba di tiire ay bol fi daan jël seen paquet di leen xoxatal loolu duñ ne buñ ah, euh, aussi beneen question mooy dañu ne am na ay blessé. waaw loolu xam nga ñun ñun moom ñun ñun moom ñun xam nañu li ok yoon dina dal si sa kaw bu dee jaarul yoon parce que gisuñu.

ma bind ko message nekk li xew Cambérène lu si sa xalaat tontuwul. ok ñun def nañ li ñu war a def def nañ ko. d' accord ndax kaay ñu kaay ñu ànd wala kaay ñu liggéey loolu kenn du ko forcé doomu aadama. dëgg la ndax ñun li ñu bëggoon mooy ñu ñu jokkoo si téléphone sol suñu daal dem dox fa tànku jàmm. Mhm. xale yi gunne naan seen ataaye euh, euh, bu fekkee ne ay ay ay ay ay tooñ dafa am ñu jégalu. Mhm. garde yi yemaat seen place kenn ku nekk def liggéeyam. Mhm. Euh, jàmm dellu si waat si kasam ñun loolu moo doon suñu yéene ci ci njëlbeen. d' accord. d'accord mais Ibrahima dañuy faral di gis yu mel nii souvent day am ci kaso yi souvent lan nga jàpp ni moom moo war a nekk te nekkul.

station chambre neuf fukki mètre ak ñaar si juróom-ñaari mètre. ak seen taraal ak yéen a ngi ñoo fay ne ak seen douche. Mhm. loolu soxna si xel nangu ko loolu yëpp jafe-jafe yooyu yëpp bu ak mhm. yu mel nii pour muy judd ci kaso du bett kenn parce que doomu aadama moo te doo koy tekki mu doxantu sax bu yàggee yow bi koy jox kaso. tey ci Sénégal fi mu toll tey ci ay doole ñu fi am doomu aadama bu ne nag mënoo xase nit kaso parce que ku nekk tey sóoral na nit dee taxawee sa kanam noonu la kaso taxawee sa kanam ñun nous dirigeons une association boo xam ne loolu mooy défendre képp koo xam ne dañ la néewal doole et ça nous l'assumons. sax nu sax nous l'assumons et une enquête dinañ ko mëne képp koo xam ne tax nga ñu si yoon dinañ dinañ la yóbbu dañ la kaso loolu moom a disconvenu mais pas et dans dinaa dem personnellement gisante ak le ministre de la justice. d'accord mu tànn sur cette question en ce que vraiment des mesures yu yu yu yu am doole ñu jël ko ngir en ce que le droit du détenu soit respecté en milieu carcéral. alors est ce que jàpp nga ni euh, administration bi ñoom aussi dinañ génn def seen déclaration. non xam nga man parce que ils nous doivent des explications quand même. man du ma porte man soxna si man du ma porte parole ministère de la justice dañu am porte parole may leen xaalis. Mhm. yor seen oto yor seen xaalis man du ma porte parole administration présidentielle.

voilà comme ni nga ko déggee rek moom yaakaar naa ni euh, analyse am moom mënuñu see teg leneen ndax nekk na koo xam ni comme ni ma ko waxee euh, sànq ba léegi xam-xamam màcc na bu baax a baax jëm ci euh, mbirum détention en tant que ex détenu aussi